télévision Futur Média mbokk yi ngeen jëf ñoo ngi leen di nuyu bu baax dellu di rafetlu ni ngeen àndee ak suñu ay programme fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi da ca a fës bokk na ci jano bopp euh, gaay yi jàppal tànk parti Pastef doon nañ ko def léegi ak taskatu xabaar yi conférence de presse bi amee woon fii ci Ndakaaru ca siège bu parti Pastef mu di ndajeek taskatu xabaar yu am ci jamono joo xamante ne ji dañ ne suba la ñu war a amal layoo bi war a euh, kii di Adji Sarr ak Ousmane Sonko ñoom ñi jàppal tànk parti Pastef te doon def conférence de presse ñi ngi ñaawlu jaay doole gi ñu ne moom la ñuy teg seen candidat bi ak ni ñu ko bëgg a faagaagale ba du bokk ci élection présidentielle yu 2024 yi ñu ne loolee nag danañu taxaw bañ ko du fi amee ñoom militants yi dellu nañu woote ak résistance Moundiaye Cissé directeur exécutif bu ONG 3D di sàkku ci Ousmane Sonko mu dem wuy ju yoon mu gis na it lu aju ci euh, bu fekkente ne euh, ala kulli al yoon mooy wax say mbir ngir nga xam ndax sa candidature ci présidentielle yi 2024 yi dees koy nangu am yoon googee danga ko a jox ci lu aju ci dialogue politique bi dialogue bi ñuy waxte woote waxtaan it la mu ca xalaat yegg na ko suñu ndaw yi ko seeti woon moom mu Ndiaye Cissé ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai ba ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai daan ñu amal fii ci ndakaaru am ndaje mu ñu tuddee forum africain sur les industries culturelles et créatives mu di xalaat bu ko ci fondation Youssou Ndour liñ ci jublu moo di gën a dooleel ndaw ñi ba ñu gën a amu xarañ ci woowile wàll des na ci ànd ak Fatou bintu Conté ci ay leeral ci xibaaru timis yi wallu culture it danañu ko waxtaane ak festival kan bi nga xam ne dañ doon delloo njukkal ak fàttaliku cinéaste bu mag bii di Ousmane Sembène bu doon dund tey ji dana am téeméeri at am ndaje lañ ci doon amal foofe ca Paris la France ngir doon ko waxtaane naka noonu it ab liggéeyam ci wàllu cinéma moom Sembène Ousmane mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci xibaar ngeen taaxee lu ma faram fàccee leen ko dellu leen nuyu dellu rafetlu ànd bi ak euh, télévision Futur Média ni ñu ko junjëwoon ci bopp bi la ñu duggee ak yéen ci yaatalu xibaar yi dañu koy door rek conférence de presse bi nga xam ne gars yi jàppal tànk parti Pastef amal nañ ko tey jii ca ngoon ca siège parti Pastef li ñuy ñaawlu moo di li ñu jàpp ne seen candidat bi Ousmane Sonko la ñuy fexeel ngir bañ bokk ci élection présidentielle 2024 yi ñu xam ne ca ndaje ma ne loole ñi koy jéem dañuy sonn rek waaye du am woote nañu résistance sàkku nañu it ci euh, lu aju ci justice mu tëddee njaaxaanaay la tukkee ci ndaje ma mi ñu seqoon ak taskatu xabaar yi Mamadou Fall la ñu ci yàndal waa Pastef di ñaawlu li nga xam te ni mooy injustice bi ñu ni nguur gi mu ngi leen koy teg boo xoolee lu ñu ëpp ci li ñu tëj nee nañ ci manifestation yi ci ñoom la bokk waaye itam li nga xam te ni mooy jalgati yoon gi ñu dëkkee teg ko seenu leader bi di Ousmane Sonko ñoom tey ñu jàkkaarloog taskatu xibaar yi nee nañu dafa jot nag yëf yi jeex tàkk. mbokk yi caaxaan nag dafa war a am terminus insha allahu taala bu laajee ay bakkan pare nañ pour joxe ci suñuy bakkan ndax nag réew mii day réew moo xamante ne deret ju bari moo ko sos ñaq wu bari moo ko sos bakkan yu bari moo ko sos ba Sénégal xëy doon li mu doon tey kon duñu seetaan le président Macky Sall mu di ko salfaañe ca nam ko neexee ngir bëgg a faagaagal rek kenn nit koo xamante ne dafa war a wut kon ñu ngi woo boole mbaam mu dab di booleem doomu daara yi ak fépp fu mu nekk ci réew mi ñu am dëgg-dëgg taxawaay ci jàmmarloo ak le président Macky Sall invoqué notre droit à la résistance constitutionnelle jàmmarloo ak dérive yi nga xamante ne moom la moom la moom la euh, mag Sall nekk ak ñun. lekk ak waa Pastef guddi ak bëccëg suba ngoon au vu et au su de tout le monde. yëf yi jeex lu war la tax ñuy woo mboolee muy démocrate ngir ñu jóg kon jàkkaarloo ki nga xam ni moo di président Macky Sall ak ñoñom naxte fi mu yóbbu réew mi kenn xamul fan la. ñi nga xam ne ni ñoom ñooy les démocrates de sa pays ma di leen di wax ne il est temps que ñu jóg noppi bi yàgg na toogaay bi yàgg na. Sénégal dafa yàgg joxe un exemple de de de dans le monde et dans l'Afrique un exemple de démocratie bu ñu toogee ba en 2023 yëkk yëkkati ay dossiers yoo xam ne dara dara dara lalu leen yu du caaxaan ak njuñ njaaj ngir tout simplement bëgg a faagaagal un leader politique leader boo xam ne ni tey c'est le leader le plus di Sénégal ki nga xam ne ni tey sénégalais yi moom la bëgg projet bi nga xam ne ni woote na ko sénégalais yëpp adhéré si ñu toog ba tey ji ni ak quelques mois Euh, di présidentielle ñu ne dañ koy faagaagal defe naa loolu bëgg a yëngal réew mi la ak bëgg a tooñ sénégalais te loolu sénégalais duñ ko nangu. fàttali ni procès Ousmane Sonko Adji Sarr jàpp nañ ko talaate gi ñaar fan ak ñett ci euh, weeru mai gi ñu nekk euh, ca tribunal ginnaaw bi ñu ko dàqee woon ci fukki fan ak juróom-benn ci weer wi ñu ne waa Pastef nag ñoom ne seen projet bi lu ne jaral na leen ko. bu mag bu ñuy wax Barham Diop dafa wax ne am réew jàmm mooy ko leneen bokk na ci Moundiaye Cissé directeur exécutif bu ONG 3D yëkkati di sàkku ci Ousmane Sonko wuy ju yoon moom mooy bokk ci coalition organisation société civile gis na ne Ousmane Sonko mënut a bëgg a wan yoon ba pare te bu ñu yeggoon tey ci valider candidature am faaw yoon da cay àddu nga xam ndax dañu koy valider am déet mu xam leet ne lu aju ci waxtaan wi njiitu réew Macky Sall woote amu ca ponk buñ ca war a seppi naan bii duñ ko waxtaanee bële lañ cay waxtaanee lépp lu soxal njariñ réew mi rek des ko caa war a waxtaanee Moundiaye Cissé Alhassane Ba ak Lamine Diagne ñoo koo seeti woon reportage. dëddu justisu Sénégal ndaxte booy xool justice su Sénégal boobu mooy wax ñan ñooy candidat mooy valider candidature yi justice Sénégal boobu moom mooy wax kan moo gagné bu élection amee justice Sénégal boobu ki gagné moom moo koy samp moo koy installé mu prêter serment kon mënul dëddu justice Sénégal. li mën a nekk mooy liggéey à ce que justice boobu ñun ñu gën a am kóolute ci moom loolu xel mën na ko nangu dem wuy ji ñu bàyyi ko mu dem wuy ji ci jàmm mooy euh, jàmmu Sénégal mooy jàmmam mooy jàmmu état bu Sénégal kon képp ku koy conseil loolu nga ko war a mën a conseiller askan wi dafa ñu bu ñu xoolee ni procès bi di demee dinañ xam ndax procès bi dafa jëng jéng wala procès bi jéngul au niveau du dialogue on peut de tout Discuter de tout, ça ne veut pas dire s'accorder sur tout. jamais eu un dialogue au Sénégal où on s'est accordé surtout ndaje ngi muñ doon amal fii ci ndakaaru ci euh, fondation Frédéric Houman fa lañ ko doon defee euh, fondation René Cassin it àndoon ci ak fi nga xamante ne ji moo di cour suprême bu ndakaaru naka noon it institut international des droits de l'homme bu Strasbourg dajale woon ay magistrats ak ay avocats ñu yëngu ci wàllu yoon ñu joxante loxo yéene ji ak bëgg-bëgg beeg lañ ci jubloon mooy fexe ba dooleel démocratie naka noonu it justice ak état de droit waxtaane nañu ko ca ndaje ma bu baax a baax kaddu yi Sébastien Touze la ñuy déglu mooy directeur bu fondation René Cassin. ñu déglu ko ak Cheikh Diop ak Alioune Diagne. compte en réalité que de nombreuses démocraties qu'on croyait bien établies qu'on croyait solides qu'on croyait bien euh, bari na ci wàllu démocratie lu ñu foog ne dëgër na wala boo ko jaar na yoon ak fi nga xam ne euh, foofee nag la jamono toll euh, war naa mën a tax ñu daal di def aw taxaw seetlu. critique par les politiques les institutions politiques. xoolee lu ci mel ni wàllu politique bi tax na yenn ci ay juges dañ leen di xaxar loolu ci crise état de droit la bokk. les valeurs et les principes de l'état moo tax tey jàdd na ñu xalaat si solos li nga xam ne nag moom moo di état de droit ngir rek daal di euh, trouver yenn ci ay moyens yoo xamante ni dañ ko mën a préserver wàllu démocratie ba tey lu ñu mën doon war nañ ko préserver ndax foog naa ne séminaire wile loole moom mooy li nga xam ne nag moom moo di solo si boo xoolee yenn ci ay magistrat ak avocat ak ñëpp ñoo xamante nii laale nañ ci wàllu yoon ñu ngi ci li nga xam ne nag moom moo di waxtaan wi ndax ñoom itam doon nañ ci ñu am solo ci lépp loo xamante nii nag wàllu yoon la équitable qui soit respectueuse de leurs soient respectueuses de leur liberté. Massata Samb ak Mamadou Niang di député yamlante ak wàllu yoon ba léegi xamaguñu fu yoon di mujjee ak ñoom li tax mooy chambre première chambre d'appel correctionnelle dafa gantal tey jii ci altine ji bàyyi néggandiku di liberté provisoire bi ñu doon sàkku seeni avocat doon leen ko sàkkul yoon da koo gàntal eh, délibéré bi ñu ngi ko war a xam kon fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin di fàttali ne nag app boobu moom bu ñu ca yeggee ñaari député yi eh, yoon dootu leen toppeeti dara ndax dana fekk juróom benni weer yi ñu leen tëjoon ñu tëdd ko ba nuppi fàttali ne ñaari député yi ñu ngi bokk ci parti pur ñu daanoon ñaari fan ci weeru janvier 2023 ci euh, première instance juróom-benn weeri kaso ak ñaar fukki junni yoo xam ne danañ ko fay ne alamaan euh, naka noonee te juróomi million yu ñu war a dàmpe Ami Ndiaye ñibi mi ñu amaloon ay jafe-jafe Ami Ndiaye ñibi di député bu bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñi leen toppe mbirum duma nit ba gaañ ko ci tayeef naka noonee te di xoqatal nit lii la la layoon toppe woon ba tax euh, ñu daan leen ñoom ñaari député yi di Mamadou Niang ak Massata Samb lu jeel wàllu sensibilisation mu di yeete jëm ci économie sociale ak solidaire nees defit ba financement yi mën a jàppandi ci ñi ko yittewoo loolee tax na kon ministère bi ñu dénk économie solidaire euh, économie sociale ak euh, solidaire ak laboratoire bi gëstu jëmee ci wàllu transformation économique ak sociale euh, bu IFAN joxante loxo mooy fexe daal ba yéene ji doon benn ñu mën a jàppale askan wi ci wàllu financement ak it économie sociale ak solidaire ministre bi ñu dénk wàllu économie sociale ak solidaire di Victorine Ndeye la ñuy teewloo ay kàddoom Alhassane Ba moo ko taataan naka lañ ci gisee seen bopp ak li leen loi li loi bi prévoir naka lañu toll euh, ci euh, opérationnaliser loi boobu ndax bind baax na texte baax na euh, loi baax na waaye dans le dans le dans le ci ci terrain bi naka lañ koy naka lañ koy gisee est-ce que acteurs yaa ngi ciy gis seen bopp ndax protection sociale bi nga xamante ne dañ koy viser ci acteurs yi ak yeneen ak yeneen jéego yi nga xamante ne Sénégal war na ko def léegi liggéey bi défi bi effectivement c'est à ce niveau-là te yaakaar naa ni am naa ci njort bu rafet ndax yéene baa ngi fi président de la république ñëpp xam nañu li mu fi mu teg ESS kàngam yaa ngi fi ñi ci nekk di si liggéey euh, expertise baa ngi fi acteur yaa ngi fi ndaxte ESS dafa yàgg ci suñu société loolu la ñu xam loolu la ñu yàgg def donc il y a aucune raison pour que nous puissions pas réussir leneen ci wàllu xibaar ndakaaru dana daloo am ndaje moo xam ne àllarba ji di ñëw ca lay tàmbali dana dem ba ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai mu di forum africain sur les industries culturelles et créatives di xalaat bu bàyyeekoo ci fondation Youssou Ndour euh, jëm nag ci nees di def daal ba euh, jaare ci ngir wutal gone yi mu xëy buñ ko dee def ci yan anam lay doon ñu bari ci ñu sa xam-xam màcc jëm ci wooyu wàll wala ñu ko yittewoo daañu ko waxtaane moom yi leen ndaje Fatou Bintou Konté àllarba bi dañoo fas yéene door ab benn forum bu mag ñu tuddee ko forum sur l'industrie culturelle et créative ki ko initier mu di fondation yu Ndour pour les industries culturelles et créatives ñu di fas yéene ci waxtaanee li nga xam ne moom moo di xëyub ndaw ñi. forum bi mooy nekk euh, euh, sujet bi nga xamante ni wala prétexte bi pour acteurs yi mën a regrouper wu débattre ci maintenant moo tax ñu def point d'interrogation bind à quelles conditions. xoolee li nga xam ne moo di ICC yi mu di industrie culturelle et créative yi nag dañoo seetlu ni li jëm ci wàllu xëy dafa nekk loo xam ne lu am solo la ci ñoom ndax lu ci ëpp dañuy faral di jox ndaw ñi ay xëy surtout nag bu ñu ko xoolee fii ci Afrique. donc thématique bi dañ koy poser boo ko poser nag. Euh, dialogue yi ak li nga xamante ni mooy travaux ak session douze sessions yi chaque session dañ ko réfléchir par rapport à à, à cette question là pour apporter des réponses donc panélistes yi fay. forum bi nag thématique yu bëri dana fas yéene waxtaanee jëm ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum togg wala sax li nga xam ne moom mooy jëm ci wàllum li nga xam ne moom moo di cinéma. condition financières yi ñu war a teg dispositif yi au niveau des infrastructures wax formation yi ñuy euh, nécessité aux jeunes. yi nga xam ne moom lañ soxla pour mën a bénéficier wu ci opportunité wax aussi si li nga xamante ni mooy au plan international lan moo fa am ñun nan lañu war a mën a def pour nekk aux normes. forum bu béy dinañ amal ab benn concours boo xam ne ñu ko tuddee Pépite Academia lu toll ci 60 jeunes talent dinañ leen fas yéene jongante ñu xool fan la seen xam-xam toll. ñu soumettre ay projet pour ñu financer leen donc bi ñu ko defee on a reçu 60 candidatures. si biir 60 yi mu am une quarantaine yoo xamante ni moom moo abouti maanaam répondre na critique sur trois secteurs différents ren dañu focus woon si li nga xamante ni moom mooy théâtre gastronomie ak animation animation mooy lépp lu jëm si digital donc bi ñu ko defee am nañ vingt cinq projet yoo xamante ni Euh, c'est abouti avec une quarantaine mais vingt cinq yoo xamante ni moom moo gën a vraiment répondre au critères sa tànn nañ ci 9 yoo xamante ni le 24 euh, à partir de 15 heures ñoom dañuy ñëw secteur bu. forum bi nag ñi ci xaar ñi nga xam ne ñoo di ay kàngam yu mag ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum xëyub ndaw ñu wante it li war a taxal jëmale li nga xam ne moom moo di industrie créative ci kanam. COPITOUR di confédération patronale de l'industrie touristique des pays espace CEDEAO mu di kuréel gi jaboote kilifa yi ŋànk mbirum tourisme ci den dupp CEDEAO euh, daje nañu daje bi mooy euh, defub xayma jëm ci tolluwaayu tourisme ci espace CEDEAO ak it euh, yan pexe la ñu mën a jaar ngir gën koo suqali mu doonoon ci teewaay jëwriñ gi ñu dénk tourisme ci réewum Sénégal di euh, Mame mbay Niang ba ñu génnee ca ndaje ma rasin si bokk ci euh, Capitour am na ay kàddu yum ca yëkkati ñu teewale ko. yëpp lëkkaloo mooy moo ji tax ñu am ndam parce que euh, àdduna si léegi dafa xaw a tëradi donc ñun ñii nga xam ne ñoo yëngatu ci affaire tourisme bi ak dëkk yi ma cité yëpp dañu àndandoo nekk benn ñu def benn organisation bu ñu wax Capitour bi nga xam ni Sénégal lañu def ci bopp bi dégg nga man mii ma jiite ko. pour que ànd seeg euh, président Mamadou Sow mi fi toog dégg ma euh, pour dégg ma euh, ñu suñu diiru mandat ñu xool naka la ñu mën a def pour dooleel copiture bi nga xam ne mi ngi soog a am te te ñu bëgg dem ci dëkk CEDEAO yëpp waxtaan ak président chef d'état yëpp waxtaan ak ministre du tourisme yëpp wax leen dégg ma la moo ñu tax a jóg pour dooleel. suñu secteur ndax ñi ciy liggéey di ci yëngatu dafa bari te boot daanaka mun naan mun nañu sax ni que tourisme mooy la première économie mondiale. ah mu nekk itam lu rëy ci Sénégal parce que itam bu ñu bàyyee dëkk yëpp ñu taal ñu ni Sénégal yéen yéenay jiite te Sénégal yéen yéenay accueillir lu toll nii ñu rafetlu ko. Ndiassane ab quartier la bu nekk ci diwaanu Pikine askan fay yeewoo ñoo ngi jooy salte goog quartier ba salte na ko. jamono jii nag euh, nee nañu daal seenu fi toogatul ndax mbalit ma fa nekk lu ne mën na leen ko jural baa mu jural ko seenu njaboot ñu bari ci ñoom askan wi nag joxante loxo takk jóg ngir di set seetal boo le diwaan ak sax yeneen i gox yi ko wër Abi Faye Ismaïla Fall reportage. Caterpillar bi ni muy liggéeyee firndeel ni ab pax bu ñu xàll yoon ngir ndox mi mën fi jaar la waaye lii de mënta antu ndax mbalit gu bari gën fiy génne. fii mooy quartier Ndiassane féete ci diggante almer yu Pikine ak arène nationale quartier bi moom ñu ne sonn nañ ci ndox gu bonket mbalit gi. te boo xoole avant ñoom ñu fii dëkk tool xam nga lu muy mel tool moom toujours day am ndox stade bi aussi buñ ko biñ ko tëjee stade biñ ko ràmbalee nii ba tëj ko nii ba tëj ndox mi dootu am fu mu jaar. parce que ku sañoon fi nga neex dëkk day set nga mën faa jaar mën faa def lu ñu gisoo fii ci mbedd bi lañu war a foote. bu génnee bu ñu feebaree nooy def di fajata dem sa biir ah mais tamit borom kër yi nangoo ñoo tuur mbalit ci oto yi duñ dikkee mbalit bi ñu jël tuur fii ndox bi ñu tuur fii xam nga rek soo waxee après ñu ne li ñuy kaas li ñuy nii li ñuy xam rek dëkk bi xaw a compliqué ma na ko nakaru xol ndax bu tollee situation bi fii waa quartier bi am nañ ci part de responsabilité donc premier travail bi mooy sensibilisation ak éducation environnementale waa quartier Ndiassane waa yëmbal ñëwuñu fi tuur mbalit waa Daaru Xudoos ñëwuñu fi tuur waa Gelawaar ak Espoir ñëwuñu fi tuur mbalit waa Njaasaan yi fi dëkk ñëw tuur mbalit ndax taayal nañu oto bi rëcc leen ñu koy ci sotti gis nga sotti mbalit boobu mooy tax tranchées yi ñu def pour yóbbu ndox mi ngir mu bañ a taa fii di guus seen di ballu ci seen kër yi loolu leen di moytul donc mbalit mi quartier Njaasaan et en général jigéen ñi sànni mbalit ci mbedd yi dafa rafetul mbalit day indi feebar day indi épidémie su téye ko ba ci ëllëg sa. fii li fi fas yéene liggéey moo di ay infrastructure ab tali bu fi war a jaar. mais cat bi mooy c'est une zone non aedificandi bi nga xamante ne dem nañ dëkk ko dëkk ko ba ba mu doon quartier su ñu bàyyi woon sax dañuy continuer di dëkk di jëm ñu ne na comme gox bi dafa soxla ces infrastructures nañ ko bloqué fii fii day nekk tali jëm ci armée la tali dem ci romb arène la ceinture d'assainissement bi ñuy def day jóge ci égout arène ba. ñu gas benn avaloir mooy tranché bi lii dañ ko def mécaniquement donc de la réalisation des études et des travaux donc d' assainissement euh, des eaux pluviales aux alentours donc de de nationale. quartier Ndiassane Tyr ci commune bu Pikine Nord la nekk waaye bii mooy fukk ak juróom-ñetteeli quartier bi ab bidon ville la woon ñu samp ko. li leen gën a sonal bokk na ci inondation di mbënd mi ak tamit mbalit ngay jaaba jonge rawatina itam plan de d'assainissement ci biir gox gi. maa ngi leen ko doon junj sànq mu di hommage boo xamante ne ji kon delloo nañu ko kii di euh, Ousmane Sembène ca festival. bi ñuy amal fële kon ca kan lu aju ci boobu boobile festival nga xam ne tey jii Ousmane Sonko bu doon dund nee nañu dana tollu ci téeméeri at amal ndaje moo xamante ne jii ca pavillon les cinémas du monde ca Cannes lañ ko doon amal ñu bari nag ci ñu yëngu ci wàllu cinéma delloo nañu ko fa njukkal waxtaane nañu ko fa waxtaane nit ab liggéeyam ci wàllu cinéma ministre bi ñu denk culture ci réewum Sénégal di Aliou xam xamle na ne jot nañ ci Sénégal mu am euh, festival international cinéma boppam ngir di delloo njukkal. lu cinéma moom ministre de la culture di xam leen ne eh, festival bi du bokk ak eh, lu aju ci ji jéem a concurrence maanaam di ku wujjeek yeneen festival yi am yu ca mel ne bële ca Wagadugu di FESPACO loole kon ma ko xam ne ca diwaanu Ndar dañuy waxtaanee wàllu tàggat yaram ak Sénégal mi nga xam ne seetlu nañu ne kon mi ngi wane boppam ci wàllu football ci déndub Afrique bi ak juróomi compétition yoo xamante ne ñoo ci teg loxo loolee nag liggéey la bopp yàgg nañ ko waajal bu ñu sukkandikoo ci ma Mayacine Mar mi directeur technique national loolee ak yi mu jàpp ne moo ko maye dañuy koy teewlu ci micro fédération Sénégal bu football. bi dañuy yéex dugg ci match bi quoi parce dañu xaar vraiment ñëpp gis nañ xarañte bi ak fulla bi nga xam ne xale yi wane nañ ko joué ci camp waa ji créé ay occasion yu bëri mais malheureusement door nañ ko ci kaw fu nekk door nañ ko bon loolu la yàlla dogal on a manqué un peu devant le but mais li am solo mooy comportement xale yi wane na ni buñ leen ñaaxee corrigé waat équipe bi am nañu am yaakaar match li ñëw ñu gën xarañ gën a occasion yi ñu bañ a concéder jéggalu mbokk yi kooku ngeen doon gis Douma Yacine Mar Malick daaf la mooy tàggat gaynde Sénégal U20 yeey football coupe du monde bi nga xamante ne ji mooy am ca Argentine fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média 20h di ngeen ànd ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci xibaaru tubaab yi yàlla ñu yàlla dooli jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak